waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum le monde de la lutte man Tapha Mbeur tey maa génnoonu doon def benn déclaration ci situation actuelle u làmb ji fi mu toll nii boo xoolee tey euh, ñun danoo bari macha allah on est des milliers de licenciés xam nga presque plus de huit mille neuf mille licenciés c'est trop du ñu centaine du ñu dizaine ay milliers lañ te tey ñu ngi toog un an bëriwuñu di remercier au passage monsieur président Augustin Senghor bi nga xam te ne moo jiite football bi bi toog affaire toogaay bi méttee dafa génn def déclaration ne ministre bi li mu wax ànduñu si munta ne te dégg naa ñu ne football bi day démarrer le 2 janvier kon tey ñun monde de la ana suñuy njiit maa ngi interpellé monsieur le président du CNG Bira Sène Gris Bordeaux président des lutteurs en activité ñun tey yaay suñu kàddu yaay sunu voix ba tey dégguñu la nga wax les lutteurs yi nga xam ne ñoom ñooy champion yi nga xam te ne dañuy fayeeku ay cinquante millions cent millions tey mun nañ leen comprendre seen vie stable na mais nañ xalaat ni am nañ ay rakk yoo xam ne ni c'est des milliers ñu ngi toog bëriwuñu te amuñu sax deux cent mille bu mot ñenn ñi amuñu cinq cent mille kooku su toogee bëriwul day metti ci moom te dégguñu kenn génn wax ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp parce que tey làmb dafa war a créer emploi mais warul créer chômage te ñi siy dund seen yaa waajur yaakaar leen si dafa bari trop xam nga ñu ngi jégaluwaat di du lancer appel képp kuy mbër nga def vidéo wala nga génn nga wax parce que tey toogaay bi dafa yàgg soo mënul wax nga jël soo mënul wax nga jël sama vidéo nga partagé ko parce que tey euh, quoi qu'on puisse dire gars yi sonn nañ xam nga sonn nañ trop te làmb ji dafa war a tijji ñun mbëri duñ ay dof gis nañ ñu ngi subventionné danseurs yi yi ñëpp mais kenn subventionné wuñu ñun laajuñu subvention ñun ñu ngi entraîné suñu doole lañ yaakaar nañu ubbil suñu laamu ñu daan suñu doole soxlawuñ ñu subventionné ñu mais nañ ñu ubbil ñu bëre parce que duñ ay dof bu ñu ubbilee tegal ñu ay mesures dañuy respecté mesures yi bëre parce que tey loolu mooy suñu métier mais tey toog un an bëre woo ñu ne da ngay demaat beneen at tey am nañ ay xarit yoo xam ne ci làmb lañ bokk. tey ñu ngi leen di dégg ci naka sudul noonu ba ñu ngi tëdd ci ay ci ci ay kaso lan moo leen ko waral di ay xale bëriwuñu atu yàlla mais nag ñun dañuy wax lan lañ mën mooy wax parce que ay ay sans lañ ay mbër yu ndaw lañ nekk ay xale am nañ droit wax parce que ñu ngi toog bariwuñu suñuy waajur yaakaar ñu ñuy entraîné suba ak ngoon ñu ngi lancé waat appel kilifa làmb yi ak suñu président lutteur euh, des en activité Gris Bordeaux ak président CNG ñu génn def déclaration parce que mbër yi dañu sonn maa ngi jégalu nag lépp lu ci déplacé wu.